ngeen def li ngeen la fas yéene kaay revue de presse pili maa ngi nii xool leen fii ceeb bi cher na diwlin gi cher na wër na yàlla saabu bi may sangoo cher na lii métti na jooy na jooy yoo xam si amatu ma koy jooyee xoolal man nu wecc kii nu mu tuddati eh, xorom si sax léegi dañ koo yokku ma jox peñe bi yokku nañ ko sunguf bi yokku nañ ko dëkkuwaay cher na wóor na yàlla wala xam nga nu ñuy def li gën ko ci wenn kaay sunu sunu xoole yéen a kaay nee na moom fi mu ne nii xoolatul fenn ndax fi dëkk bi daa commencé cher ndugu mi na marché bi cher na ndugu mi cher na xoolal man mii sax man takkaguma jabar waaye gëw ma ma takk jabar jabar cher na Sénégal lépp cher maanaam fi mu ne nii xoolal wóor na yàlla laaj na xoolal laaj na man mënutuma dem de revue de presse boo xam ne cher kese nga fi mënutuma dem alors kii cher na nu mu tuddati ak cubaloo xar xar mi ma tudd cubaloo cher na man daal bu ma demee ba xamatuma fu ma jëm ma dem Ouagadougou Sénégal la bokk wala kon tey maa dem dëkk fii nu mu tuddati fii Gambie ah Sénégal boo xam réew mi loolaal ne la ah cher saako ceeb vingt deux mille vingt cinq mille ah loolu diwlin cher na nettatu bi gënoon a yomb ak kaani xëy cher na man nag wóor na yàlla ma demee ba xamatuma fa jëm ah wax dëgg yàlla nag ma wala ko ndànk <laughs> tin naa nag ma sama yaay <laughs> sama yaay waay ay waay waay tin naa de mooy ne xoolal revue de presse bi fi yaa ko lii moom kenn xamut nan lu wàññul dund gi loolu dong lañ soxla dégg nga dégg nga maa la ñaan loolu dégg nga dégg nga xam nga xam nga léegi nu ñuy def nu ñuy def nu ñuy def léegi wàññi leen ñu dund gi wàññi leen ñu lépp ah <laughs> ah